oui danger la euh, en tout cas mën nañu wax ne danger la dans la mesure où même avec les petites équipes danger la mhm. parce que souvent euh, les petites équipes là dañ leen di sous-estimer mhm. et danger bi foofu la gën a nekk nag et c'est ces petites équipes là que tu tu prends pour des petites équipes maintenant équipe yooyu bu ñuy faral di ñëw dañuy ñëw ak benn mental bu foor mhm. maintenant si tu et voilà et, et ça, ça mal donc euh, danger bi ci ñaari côté yëpp la pour le Sénégal mm. il faut être très prudent avec ces équipes là entre guillemets petites et être très prudent également avec le Burkina mm. qui nous a énormément posé de difficultés dans dans dans euh, yi nga xam ne jot nañ ko jouer mm-hmm. tu es tu évoqué tout à l'heure le problème du système actuellement ah ak doute bi ñu faral bi ñu nekk mm-hmm. actuellement euh, ce qui tourne autour de l'équipe par rapport ak question wu euh, système boobu te Sadio Mané évoqué woon ko la la dernière fois. donc loolu dafa dafa indi problème. Mm-hmm. au niveau de notre équipe. donc il faudra que euh, avant de de ces ces éliminatoires mm-hmm. que le Sénégal puisse quand même régler cette question. Mm-hmm. mais comment voilà comment c'est-à-dire euh, Sénégal dafa war dafa war a mën Euh, li nga xam ne moom mooy euh, dafa war a am caractère effectivement parce que le Sénégal combien d'années il a été premier au niveau africain ci classement FIFA mm-hmm. Mm-hmm. pendant des années mm-hmm. presque dix ans wala lu ko ëpp maintenant c'est à partir de l'année dernière que ñu commencé wàcc ci deuxième position bi et depuis daaw ñu ngi ci deuxième position bi maintenant donc loolu dañoo war a mën a euh, imposer suñu caractère à ce que ce qu'on soit conscient qu'on est la meilleure équipe africaine maintenant comment imposer ça da ngay tase ay équipe nga imposer leen de jeu maintenant le Sénégal n'a pas ce droit là de jouer en reculant et ces derniers temps c'est ce qu'on c'est ce qu'on constate mm -hmm. on recule c'est ce qui nous a amené l'élimination à la Coupe d'Afrique contre la Côte d'Ivoire Et ce qui a étonné beaucoup de gens, mm -hmm. on ne peut pas jouer tout un match avec un, un modèle boo xam ne tu tu tu tu tu baisses le tu tu, tu fais mm -hmm. le bloc tu amènes tu l'amènes en bas et tu veux jouer comme ça durant tout le match. on, on peut on peut jouer par moment. Mhm. hein dans dans dans tel ou tel niveau. Mm -hmm. basant se parlant du bloc. Mhm. maintenant bu fekkee ça ne marche pas il faut changer. alors kon vous pensez que da bokk ci ñi nga xamante ni dañ jàpp ni euh, recul bi nga xamante ni Sénégal mu koy am c'est dû au système de jeu bi nga xamante ni entraîneur bi mu ngi koy teg. oui en quelque sorte waaw parce que d'habitude Sénégal dafa amoon modèle de jeu boo xam ne on jouait d'habitude en 4-4-3. Hmm. en 4-3-3 en système mu Sénégal yëpp noonu lañ doon footballé moom la joueur yu bëri miinoon parce dans la plupart du temps c'est ce qui joueurs yu bëri ci loolu la ñuy évoluer dans leur club maintenant bu fekkee ne da nga ñëw nga bëgg a changer système boobu brusquement comme ça alors que beaucoup d'entre ces joueurs là yi nga xam ne moom nga moom nga am bon ils ne se retrouvent pas dans ce système simplement parce que dans leur club du ñu évoluer ci ci ci boobu système d'accord donc système bu bees bi ñu teg ni boo xoolee ñu si bëri bon à part à part euh, Crépin Diatta qui qui évolue comme piston à, à Monaco. Mhm. donc amatoo beneen piston léegi yow boo bëggee jouer ci boobu modèle vraiment ça pose problème.